mais il y a des conseillers qui mel ni may Mais tourné le dos moi je n'en vois pas parmi les conseillers conseillers mais la plupart ce c'était même pas des conseillers c'était pas des conseillers en termes de ils n'étaient pas assidus au conseil municipal pour l'essentiel nous nekkuñu pas ak man man man nekkoon ak ñoom man maa doon jëflante ak ñoom ngir jom mais mos ñu nekk ak moom et je le savais mooy li ma wax léegi rek fu tooy ñu dal nekkuñu fenn foofu fu tooy ñu dal c'est des sauterelles ils n'ont jamais été avec nous ils n'ont jamais été de taxaw Dakar jamais et sur 56 conseillers c'est quatre ou cinq qui sont partis. ils m'ont tourné le dos. Mais quand tu me parles d'Ibrahim Ndiaye à tourner le dos, ça fait un problème le 1er juin. Quand tu me parles des hommes et des femmes de valeur qui sont dans le conseil municipal et qui sont restés avec nous, j'aurai des problèmes. Mais ceux qui sont passés, ceux qui sont partis, mais c'est la mauvaise graine. Même les paysans, buy semé jiw bala ngay Faut foog nga tànn jiw bi bëpp geeg lu nous da nous koy sànni c'est-à-dire nous faciliter ça la tâche en nous quittant parce qu'ils savaient qu'on n'allait plus les reconduire. Ils sont partis d'eux-mêmes. Bon vent Bon vent Pour nous, xam jëm man dama am jom ko amul jom nak du wax ak yow ko xamni bu la réel non non non bu demee di bind lu ko neex mais comme loo wax et ñu ci bari même bu ñu nekkee conseil yalla ak man la parce que ba leen def conseil dañ ne ma bu leen parce que nous, nit dara ma bañ leen pas si leen tey ñooy wax yooyu comment comment un maire peut détourner c'est une aberration parce que xaalis bi ñuy wax mais c'est le conseil municipal qui vote c'est le préfet ou le sous-préfet qui qui approuve c'est le percepteur qui paye et le percepteur

ki ko wuutu ni moom day àggale programme mu Khalifa Sall ma ni donc mi ngi ci dinaa mu ngi defar terrain ñu dem seeti ko ni ko da nga bëgg dañu bëgg nga jàppale ñu ñu engagé le terrain Castor mu ni dinaa leen jàppale mais jàppale bi mu leen di jàppale nag ndimbal na ci fekk loxol borom comme que trois cent millions la man mën naa leen jàppale deux cent millions cent millions yi ngeen mottali ñu ni ko xeer alors c'était au mois de novembre comme que budget au mois de décembre mon millions 100 millions mais xam ville de Dakar commune mais les qui ont commune mën na ville de Dakar C'est ce qu'on appelle la participation nous avons millions le 23 novembre 2019 novembre décembre janvier février mars defuñu ci dara xaalis baa ngi seen seen kees rek mais ma woo leen ne mais yéen di xaar lu ngeen di xaar te xaalis bi ñoom dañu waroon jël xaalis bi rek verser ko entrepreneur mais defuñu ko ñoom ci seen bopp ñoo dem seetal ku leen di liggéeyal plateforme ñu doog defuñu luy yoon mais comme que man li ma ñoroon ñoroon jeunesse bi mooy la terre bi na pare rek ñu jël cent millions yi ci des def ko ci compte ville de Dakar parce que wolof Njaay dafa naan kundo bin boo gisee man dama gis lu ñuul daw ma sax waaye dama fax ma dem gis beneen fournisseur waxaale ak moom pour affaire gazon 100 millions yooyu ñu ñëw versé ko femme ko ko fournisseur 100 millions yi ñu waroon joxe ñu def ko marché fay nañ ko lañ ko war a fay yëpp ba jënd nañu gazon bi gazon baa ngi ci yoon bi di ñëw fii léegi ay fan gazon ba agsi fii ci terrain Castor moo tax ku ci gis day am kersa voilà le problème du terrain de Castor mais ce qui est important mooy terrain bi dana pare daañu ci engazonné daañu ci football daañu ci dal système alors c'est pour rassurer c'est pour rassurer les populations gis nga voirie bii ñuy defar man je suis maire de Dieuppeul-Derklé mais je suis membre du conseil municipal de la ville de Dakar. Et c'est le conseil municipal qui vote le budget. Ville de Dakar d'exécuter le budget Bokonati, voirie et liberté 5B comme liberté 5C comme liberté 3 et Derkelé, c'est prévu dans ce programme-là pour faire la voirie. parce que dafa am ay taxes am ay compétences yoo xam a ville moo ko war ak compétence yoo xam commune moo donc la voirie est en bonne voie inshallah. c'est une question de jours pas de semaine ni de mois de jours pour faire la voirie le pavage aussi leeral nako du PACASEN du état c'est la commune de Djebel est sur fonds propres mooy def programme pavage plus de 200 millions investis mais PACASEN kañ la xew 2019 la xew et booy def PACASEN dafa am moi, respecter, est respecté ensuite trois domaines de compétences j'ai choisi Nous, on a choisi éducation santé sport xam nga bu venu wax terrain de 2 sax am parce que je me demande naka la nit mën prétendre à diriger une collectivité territoriale ba près de hors la loi hors la loi mais quelqu'un qui a demandé sax autorisation de démolir ou l'autorisation de construire jardin Dieuppeul 2 avec l'acte 3 de la décentralisation c'est un patrimoine de la commune commune nous on ne doit pas privatiser ça terrain Castor vous faites ni bañu moon ñu privatiser mais fois on ko bu mais comme c'est un patrimoine de la commune pas ko moom

je me réveille un bon jour gis ñu liggéey ci terrain bi ma à Descos Descos naan ma le terrain bi nekk ma wax ko sous-préfet commissaire police bi ñu naan ma mënuñu fa j'appelle le préfet de Dakar immédiatement mu à Descos ñu avons arrêté liggéey bi convenu convoqué ñu préfecture am avons ñu ci délégation bi bi ñu préfet préfet Dakar ni leen amu leen sañ-sañu def lenn ci terrain parce que qui mairie bi Moko il faut nous liguer avec mairie D'abord, il faut arrêter les travaux deuxièmement il faut présenter au maire le plan présenter au maire le défi mais ils l'ont pas fait Nous continuer à s'indiquer. mais man est-ce que vous avez di woo ay police bi ñuy def pavage école Ibrahima Kouaté yéen ngeen coow li fi am ba ñu dajji ko c'est le sous-préfet moo ñu woo ci bureau avec l'inspecteur IF Ablaye Wade et moi-même on était quatre dans le bureau ñu yedd ko ba ma rus sax mun moom ci boppam mu ne ma bala may defati dara dinaa ñëw waxtaan ak yow mais soxnaam buy organiser ay ay ay réunion daf may woo ma autoriser ko ni ko yow sa borom kër nii la war a def

xamuñu mënuñu ba pare bëgg def fii nag naa ne ñeex commune bi nee na waaw commune bi nee na yeewi